xalaatoon nañ ni que Sénégal dina jouer contre contre Brésil euh, tey xam nañ ne équipe boo xam ne la compartiment boo gën boo jël ci ci seen équipe rek am nañ fa ñaar wala ñetti joueurs yoo xam ne am nañ niveau mondial je crois que tey dem jëli leen est-ce que dem jëli leen ci kaw est-ce que loolu solution la parce que xam nañ ne techniquement am nañ qualité yoo xam ne même pression bi bu ñëwee ci ñoom mën nañ mën nañ ci mais nek ci ginnaaw pendant 90 minutes du loolu moom a gënal je crois que lu am solo surtout mooy ñu trouver équilibre bi parce que stratégie bo gis rek question équilibre la équipe boo gis rek muy dem rek c'est parce que question équilibre la dina am ay moment xëy nit nañ leen dem ci kaw mais dina am ay moment yo xamni ni xëy nit nañ leen bal bi pour que justement ñu mën leen contrer voilà donc euh, tout départ rek voilà donc euh, mën nañu varier yëpp mën nañu mën nañ leen xaar comme mën nañ leen dem jëli